alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi Baye wax naa ne ajam gu njëkk mooy 1937 danaa tudd xajam yi yépp fii ki ko njëkk def ci téere mooy Mouhamadou Laye wul Seyd moomu waaye man maa ko tombeleeg at bu jot lum tolloog ci ati tubaab yi 1355 la Baay njëkk aji boobu mu ngi nekk 1937 te weeru weeru aji itam mu ngi nekkoon février février moo doon weeru xaj ci at boobu ajam googu ajam yëpp barke na waaye aj yooyu aj googu mooy aj yi nga xam ne moo ubbi dëkk yi wax na aj gi ci téeréem rexlal xijaaziya nettali ci fa mu jaar lam def ci sunna yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bépp mawqif bu mu taxaw boo xam ne am na ci lu ci sunna wax la sunna wax lay def mu ne bu génnee ci loolu nag mu ngi ñaan rek lu mu soxla ak di jàng salaatul fatihi bu daan wër salaatul fatihi lay ñaan benn wër bu nekk dana ci jàng téeméeri salaatul fatihi ak ñaar fukk nga xam ne mu ngi ko doon tartil kon aj googu taarix la ndax kilifa yu bari bàyyi ci aj googu la dajeek ñoom ci njëkk muy dem ci aj googu ci les ziyaare Fass ba mu ñëwee Maroc dem Casa dem ci zaawiya bi nga xam ne moo nekkoon foofu Seyd Ali ibn Ahmed Suusi nga xam ne moo doon muqaddam zaawiya bi foofu ba bàyyi toogee moom waxtaan ak moom daf ne ko naka jekk Seyd Xuseynul Efrayini daf doon wax ne as-Sudaanu macdanul wilaaya ne ko réewi nit ñu ñun ñi mooy mbell ak wa te Sidi Ahmed Soukeyri ju wax na ma ne yow yaay aalimu Soudan yow yaay borom xam-xami Soudan bi mu dajeeg si Tayib Soufiane nga xam ne doomi Mouhamed doomi si Tayib Soufiane bi nga xam ne xalifa Cheikh Ahmed Tidiane la woon mu jox ko lijaase ci lim am yëpp ba pare wax ko ne ko ñeent ñii muy Cherif Mouhamadul Ghali Cherif Mouhamadul Ghali koo xamul ci yéen mooy. moo doon sëriñ Cheikh Cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu Cheikh Umar mi nga xam ne moo indi tariqa bi ji Sénégal ba Nigeria ci Afrique gi yëpp ki ko jox tariqa mooy Abdou Karim Naqil Abdou Karim Naqil Seyd Mawlud Fall moo ko jox Seyd Mawlud Fall Cheikh Mouhamadul Hafiz Shingiti moo ko jox mooy maami Mariam Mële waaye ay sëtam ay doomam mujj nañ mujj ñëw topp bàyyi ngir li ko yàlla feeñal ci moom Cheikh Mouhamadul Ghali moomu ci la Cheikh Umar mujj jàppaat ndax tasee naa mom ci xaramay Makka ak Medina am ak nak mom ñetti at ba koku ne Cheikh Omar yow dal duhulo rek muqaddam ci tariqa bi way khalifa Cheikh Ahmed Tidiane nga radiyallahu anhu si tayib sufyaan nak ne bay cheikh mohammed al Ghali ak Mawlaay abi ibn abi Nasr taalibi Cheikh Tidiane la boo xam ne commencement bi sax ba mu daan ñëw Cheikh Tidiane pour fekkee rek di lekk ak moom moo daan indi. mu dem ba àgg ci xilaafa bay wax ne Seydi xaraasi mi dem na bàyyi ma may bonde man kenn ci sajaadaab xilaafatu mu ne ko ak Abdul Wahab bin Ahmar ak Sidi Tayyib Sufyaani mu ne ko ñeent ñii ku ci nekk am na ci Cheikh Tidiane loo xam ne moromam amu ko te ñoom ñëpp ku ci nekk dafa wax ne lim am liñ am yëpp ñoom dajee nañ nañ ko ci kën suusi te kën suusi nee na lim am dajee na ko ci man man nag jaam bu xeebu laa mënumaa wax li kenn si wax waaye wax naa ne li ma am yëpp tam ba tey mu ngi ci yow nga xam ne fu jaar rek jël fa la nga xam ne mooy njëriñ parce que ku ko am bu boobaa dootoo dootoo sonn ci tukkeem boobu dem na ci Tanja ba tey ci Maroc la mu dajee faak ay góor ñu baax ci tariqa bi wan leen jawaaril maani bi mu amee ci xat xatt sidaali xaraasi mi aglim ame chikarawi ci Ahmed Tijani nyom nyine ko ñun de dañ daan gis góor ñu baax waaye dañ leen a gis ba du ko ne ko amna na kilifa gu wàlliyu bu mag bu fi daan bu fi mas jaar muy alxaaji Abdoulaye ndax xam nga ko na ko kooku mooy sama baay ne ma walaay jeex itam fu mu dem ba sufur fa la jëlee fa la Ahmed Tijani bi nga xamne mu ngi ciy wax bàyyi wax ودم التيرم بموح جمع الجوامع دنك فك قصيدة بموحنة بشرايا حزت الذي قد عز مدركه عسى الإمام التجاني صرت أملكه وغير ذلك مما لست ألفظه لكنني حزت سرا عز مدركه يا من يريد التجاني أي مسافح مسافحة في بيت برهامة تلفيها مكافحة ولم أقل فندا ولا مبالغة فإن أردت فسلنيها مواجهة بمقبض الشيخ مسك ci musaafahatan baay ba mu amee xet woowu daf ne mbégte ñeexal na ma am naa li nga xam ne jafe na am ko jafe na lan laa am mooy xetu Cheikh Ahmed Tidiane mujj naa ko moom ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne duma leen tudd waaye nag am naa mbóot yu rëy mu ne yow mi bëgg a gis Cheikh Ahmed Tidiane bu koo nuyu mu ne ci néeg barxaama ngay amee loolu loolu nag théorie la bu fekkee maanaa zaahir bi mu mujjee bayti moom nga bëgg dégg ba tey déggal loolu mu ne boo buggee nuyu Cheikh Ahmed Tidiane xeet waa ngi nii rek téyel ci fi daan téye nuyu nga ko fekk am na leneen lu nekk ci biir xeet woowu ba tey jii mu nga ca mu ngi ci nekk sëñ daam bayti yi sax ñu ngi ko bind ci kaw kii bu ñu ko bindee te bàyyi day wax ne ci luñ ko jublul rek loolu faju ci ci tukkeem boobu la ko amee nga xam ne kon tukki bu barkeel mu dem ci li ziyaare Cheikh Tidiane radiallahu anhu ziyaare bu am xaal boo xam ne jooy na foofu jooy yoo xam ne mu ne muñ ji nit ñi dañuy ñëw di jël ronxañam yi di ci barkeelu mag mu em ni bàyyi lu koy jooyloo te ci jooy rek la dëkkoon jooy rek ci la dëkkoon ba kaytu af naytu famal bukaa si waa lil qalbi min xarqati shawqi boobu ci tagg yonent bi la koy waxee jooy naa ba jeexal ba jeexal ronqañ yi te jooy nag du dara lu may lakki nag xol ngir lakka nag cofeel ndax ki sopp lim soppu lu ko ci doy du ko ci am mukk loolu tax force xol bi di lakk waxtu nekk ci boobu ci la dem Madina Munawwara la bàyyi njëkk a dem ci ajam gi am na fukki ñaar fukki fan ak benn ci ci madina door a dem mag ñaar fan ak benn yooyu tudd na ko ci reela xijaasiye waaye daf daan dem ci biir woyam yi sax di ko fàttaliku ba ci ba ci dawaawin si te mu ngi koy fàttaliku bi tayibi ayaamin bi jannati taybatin wa tizkaaruha lil qalbi mar'an tayibi ayaamin la ko tënkee tayibu ayaamin mooy fan yu teey waaye tayibu boo ko seetee du mooy ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak benn la am foofu ci la dajeeg Amir kënu bi nga xam ne moo njëkk a jàpp ci moom nga xam ne mooy ubbi yooni Nigeria ndax fekk na dégg ngeen ko ba son duma jaaraat ci yu bari waaye ci la bees du ci bàyyi moo ñim ànd ak ñaan ko lijaasa mu may leen lijaasa bàyyi mu ne amir bi ànd ak moom di ko xidma ci ajam gi ñim àndoon ak ci aj gi nag ma Abdou Ñang la ak ku ñëw Aboubacar Sankhare aj gu bëri karaama la ndax bi muy dem mu ne magam mu ne suma wàccee ki nga xam ne maa ngi koy wàccee suma wàcc waaye bàyyi bàyyi ku yarul la ku baax la boobu baat boobu da ngay foog lu tuuti la waaye maa ko wax bàyyi ku baax la mu ne alaaj baakar daf koo dénk ne ko boo gisee lu la jaaxal rek da nga gis sa baay bàyyi mu ne ñu dugg ci bato bi xam nga ku miinut bato boo duggee mën na laa indil ay miir ak yu mel noonu mu ne mu commencé am dawaxaan di miir mu gis baayam di Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu mu ne ma walaaji ko nii dugalanteeg moom loxo mu saabaka sax siru la ci siru eh, gaañ yi gaañ yi dañ koy dañ koy wax xam naa am na ñu ko xam mu ne baayam ne ko jàngal inna allaha la yastahi ba ci ways an jay naakum bàyyi mu ne ma jàng ba ci wa ida laqu ba ci ba ci xisib ba mu ne bàyyam ne ko loola alaaj alaaj bakar waxoon na la nangam loolu duur ay nelaw duur ay ay ay gént dégg loolu ci aj googu la amee boobu àggagut sax fa mu jëm ma ne ci madina la beesalalee amir kanu mu topp ko nekk xaadimam te bala ngaa xam ñooñu pour ñu nekk xaadimi nit lan lay tekki mooy nga dem ba gis leen ndax kenn du leen nuyu sax koo xam ne booy génn lu ñuy wax suuf yarul gaynde dëggal rënkee dëdee yàlla na yàlla nga fi yàgg akramakallaahu di la ñaanal te defagoo dara kooku la bàyyi njëkk a def taalib am na ku ñuy wax ali ibnu abdullahi tayib nga xam ne sëdd la ci imaamu Shafii ci aj googu la ko bàyyi joxee lijaasa moom ci tariqa bi Ali al-Kutubi ba tey ab shérif ci aj googu la ko bàyyi joxe tari lijaasa am na ku muy tasee ku ñuy wax Ahmed Tibiri nga xam ne moom dafa wax bàyyi ne ko ndax duma la wax suma gént gi nga bind ko benn wàllu bu mag la ne ko dama gént yaa ngi séddale masharib yëpp naanu waay yëpp yaa ngi koy séddale mu ne ko li li loolu namm nag mooy yow yaay gi nga xam ne léem nga naanu yëpp ubbi nañ ci kaaba gi mu dugg ci kaaba gi Ahmed Sey bi nga xam ne moo doon day garde kaaba gi ne ko lu tax doo xaar ba guddi nga ñëw ma ubbil la nga xam ne dafay féex mu dee soit foofu mu ubbil ko ci ajam gu njëkk mu daje kenn ci ruknul yamaani bokkut ak xajar al aswad bàyyi na waa ji waaw yow yaa ngi ci réew mu barke mii ñoo fi taseeg nag ci ñu baax waa ji ne ko min daal bi ma ñëwee kooku waa Faas la kooku ne ko man daal bi ma ñëwee damaa taseeg fii benn waay boo xam ne min ahlil kashf la ci borom kashf yi la waaye daf maa wax ne bi mu duggee ci xaram bi rek xaal daf koo jàpp mu am xay buuba mu fàddu tuuti bi mu fàddoo mu gis xadir gis yonentu bi gis abubakar siddiq radiallahu anhu yonentu bi ne ko at mii alxawsu dana aj si borom jamono dana aj si te yàlla dana baaxal ñi taxaw ci mawqif bi yépp ngir sababi kooku waa ji nettali bàyyi loolu bàyyi na ko yow nag waa ji ne bàyyi yow nag koo daje bàyyi na ko yow laa daje dégg nga wax ci ajam googu yàlla may na ko ci mu wër kaaba gi mu ne ci diggante tusubaar ak tàkkusaan te lu ñu wax dëgg la ñi ko xam xam ko ko xamut gëm ko ma xaama ida lam tara alhilaala fa sallim li unaasin ra'awhu bil absaari boo gisul weer wi nangulal ñi ko gis sëriñ si dañuy wax ne maqaama boo weddi ñi xañ la ko moo tax weddi maqaama góor ñi jar naa moytu yàlla dafa yàlla ku yaatu la ku mën a mayal bàyyi mu ne wër na kaaba gi diggante tusubaar ak tàkkusaan ci jamono aj te benn nit neewu fa xam nga loolu koo xam ne sa xel rek ngay jëfandikoo mënuloo koo dégg waaye bokk na ci li ko yàlla defal ci ajam googu ba muy ñibbisi ci ajam googu ci la dem chataat chataat foofu la Sidi Ahmed Sukkari ja nekkoon nekk fa qaadi bàyyi daan na bindanteeg moom ca teel daan na bindanteeg moom ci teel sëriñ bu am itte la ku yàgg ut lu baax la ba muy nekk lu ndaw lay sàmmoonteeg yooni góor ñi imaam wax na ma ne bàyyi wax na ko ne ba ma nekkee xale bu xale yi daan fo sax damay ragal a fo ngir rek foog ne léegi tey mu dox suma digganteeg wilaayatu ma ne ci yoonam boobu ci la dem chataat dajeeg si Ahmad Sukari ji fekk nañu xamante bu yàgg ci ay bindante bindante nañ lu bari téere maa ngi ko ame moo xam ne ay lettre rek yu Sukayri ju bindu bàyyi yo xamne ci commencement ba mu koy diggal mu koy wax ni dafa ni bali bali baal ci mujj ga ubbi mu koy commencer ila sirril khatmi ila fasil khatmi wa sirril katmi ki nga xamne mom moy mboti khatmiyatu fekke cheikhou tidiane tijaani la mu ne ko fas bi te wax na ko ko ci wëy shahidtu lakum فتحا مبينا بما لكم به الحق من بين البرية قد خصا ورستعني شيخ التجان خلافة وإني لكم فيها أنص لكم نصا وإني أرى شيخ التجان خاتما وأنت الذي قد صرت في الخاتم الفصل سكيري جا وغلول سكيري جا ku الله may la ba mu لكم هذا ndaw la commencé def tasarruf ba am xam-xami góor ñi waaw danga gis téere yu rëy yoo xam ne ci gént la ko jànge moom ci nelaw ba bàyyi di dajeeg moom ci ajam googu ba muy dëpp ci aj bàyyi mu ne ci guddi tam xaret la la fanaan ak sukkari ji ci la ko jox sax xadiisul awwaliye boobu nga xam ne ci bés yooyu lañ ko jox nee nañ bàyyi nee na ba bu jàngoo ma ko ci bàyyi ma ko dégg lañ def ci guddi googu moog sukkari ji xajut ci ay weer ala ay tixaal ba muy tàggoog sukkari ja ba ko sukkari ja gisee dafa wax ne zatun min annouri tajassadat quluha an ni jëmm joo xam ne ci leer la formé woo ngeen la wax leen loolu ànd ak man sukkari ja wax loolu ñun tim ñu ngi koy waxaat ba mu toogeeg moom di wax ak moom di joxar bi ci yëf yi ci pay yi ci mbir yi ci mbóot yi ba muy tàggoog moom di dem su koy riji daf koo xool ne ko lillaahi darru abin wala dëkk bàyyi ji la jur moo baax bàyyi ji la jur moo baax xam nga léeg-léeg da ngay toll foo xam ne dangay ngay gàgg te gàgg boobu tim da ngay da nga koy fekk ne moo gën a moo gën a bari wax yi ngay wax noonu yépp danga gis ko noppi fekk noppi boobu moo ëpp wax kàddu da nga gis ko ne ha xam nga ha boobu noonu bu ñu ko doon saraar mën naa dem ñetti band te te te ha boobu waa ji li yëg ci ha bi ba léegi génnagul xanaa loolu la nokkee ci wax jooju loolu yëpp ma ne ci aj googu bi muy dëpp ci aj googu ci la am ba mu dëppee ci ajam googu ba ñëw semaine ci semaine boobu ci la ci la yaayam génn àddina mu wax ne ma ñëw nuyu suma yaay mu ñaanal ma te fekk boobu mu ma gërëm mu ne mu génn àddina te fekk mu ma gërëm seetal baat boobu tim nañ ci bàyyi xel parce que ku am di bàyyi lu ko yàlla may yëpp waaye mu ngi lay mu ngi mu ngi mu ngi bàyyi ci sa xel ne moom kat yaayam góor-góorlu na ba tàggale ko yaayam fekk mu ngi ko gërëm kon maqaama bii ngay ngay dégg nga xam ne nit ñi dañu foog ne maqaama rek la waaye jëf la tim am na ci jëf yoo xam ne ku nekk ku nekk mën nga cee góor góorgóorlu ku am yaay mën ngaa góorgóorlu ba mu gërëm la loolu da nga ci amee dara parce que léeg-léeg dañuy jàng ci baay yoo xam ne dañ koy dañ koy nettali pour sant yàlla waaye am na ci loo xam ne tim da nga koy nettali yow pour mën nga cee roy am nga yaay góorgóorlu mu gërëm la ndax kii mooy saroyukaay kii nga jàpp ne kii di saroyukaay te em na ci emuwaay yi góor ñi gis nga nan la def ak waajuram loolu tim dars la boo xam ne dañ ko mën nañ cee roy mu taarixal ko chumu suhaadin fiihi maatat aïcha wa lam tazal wastal jinaani aïcha kon ma ne aj googu mooy aj gi njëkk li tax may sawar ci tudd aj yépp ñun dañ cee mas di sonn di seet aji bàyyi ñaata la waaw te fañ koy gëstoo yëpp foo dem da gis ne am na bu des boo ma indiloon nangam ma seet xañ na danaa xam ñaata la moo tax bu ñu ko amee buñ ko xamee dañ ko war a génne niñ njëriñoo ma ne ci la jaar Nigeria Burkina ci la jàppee Burkina ci la jàppee ci moom mu sabab tukkeem ci Nigeria gannaaw loolu juróom-ñeenti at la door a dem Nigeria ba mu demee Nigeria nag tukki boobu bàyyi moom kenn rekk a ba mu ñëwee ne buur bi lay seet gars yi dañ doon ree sax mujj gi mu bind leetar ñi koy jokkalante ba mu àgg am na koo xam ne Moulaay Souleymane la tudd bokkoon ci ñu ànd ak buur bi ba mu gisee bàyyi ba dem wax ko buur bi keroog lañ mas a gis buur kën muy dox ak tànki neen ak ak boppi neen alaayati xaal am boroom xam yoo xam ne xamante nañu moom foofu ñëw di déglu xam-xamam muy ñoom Maalim Tijaani Osmaan fekk am nañ muqaddam Tijaani boo xam ne Aboubacar ma ji yowaa lañ koy wax borom xam-xam la borom këchfu la borom may la waaye ñoom bu ñu ci bàyyi ne ko ah ñun de dañoo demoon seeti nangam nangam commencement bi moom daf doon ree bu gai yi ñëwee mu ne waaw ana suñ seen xutbu bi waaye mu tëdd gis gént goo xam ne gis yonent bi gis Cheikhu Tijaani mu gis leer goo xam ne mu ngi jokkoo ci baay yonent bi jox bàyyi ndigal muy jiite julli ci la xam ne kii yonent ko yonent ko sam ba mu eewoo daf ne ana suñ xutbu bi mu eewu jël oto pour dem laajte ba mu demee fekk bés boobu ci la bàyyi jógee foofu mu ànd ak Cheikhu Atiqu jël nañ seen oto dem ba maali seen oto bi paan ñi gis ne léegi daal gàmmu jege si na nañ dëpp ba gàmmu paase ñi door a ñëwaat moom ci noonu la génnee àddina te amut te mujj mujj dajeeg bàyyi waaye ñoom maalam Tidiane Ousmane ñoom maalam Sani Kafanka ak ñeneen ñeneen ak ñeneen nga xam ne maalam ti maalam Sani Kafanka mooy wax loo xam ne doy nañu yaakaar ndax dafa wax ne tax biir tahbibu qutbil asri zi siyaada ila al wara min azami al ibada fexe ba jaam yi bëgg bàyyi mu ne ci jaamu yàlla yi gën a mag la bokk te koo xam rek bëgg ko ndax nit ñi lu baax rek lañ bëgg nit ñi lu baax lañ bëgg lu tax bàyyi wax ne kenn bañu ko ndax nit ñëpp lu baax rek lañ bëgg bàyyi koo xam rek da ko moo tax aj googu lu riche dama ne toog na fukki at ak juróom nag door a ajiyaat muy 1370 mu tolloog mille 1951 mu bàyyi benn at at ba ca tegu mu dem ajiyaat muy 1953 54 mu aji cinquante 55

nga xamne kon aji na lu bëri lutax nak aji yeb lan la xam nga aji ben yon rek la war way baye daf don aji pour outu minde yi bil hajj naiban 'anil khala'iq mune mu ne aji pour outu minde yi lol moy lan aj warna ku nek benn yoon ci sa dund waaye mbooloo jullit ñi ñëpp nag war na leen ñi dundal néegam yàlla bi at bu jot bu jullit yëpp toogoon benn at boo xam ne kenn ajiwut jullit yëpp danañ bàkkaat bàyyi ngi fegal jullit ñi bàkkaar waaye tim meññeeti jaam yi foofu lañuy dajee foofa la daan dajee ku ku ñu war a defar rek mu defar la moo tax ñi bàyyi defar ñëpp ñëpp xamuñ leen bët bu set nga gis ku bees moo tax benn sudaane tagg ko ci rexla sudaane mi ne wa huwa alladi hadda al amakina kullaha hatta al muqaddasa kaabat al xalaaqi mu ne kii mooy ki nga xam ne place yëpp gësam na leen ba ci kaaba gu tedd googu sax bu fa ñëwaan rek muy muy rëngi-rëngi imaam a ngi nettali mu ne benn waaye daf ko mas wax saoudiya ne ko Cheikh Ibrahima Niass moom borom xam-xam la waaye daal lu tax wonu toon taalibe mii ne mum ka gee ko ëpp solo ndax bu aj siyaan bu jullé ci hôtel bi talibé mi kën du dem ci kaaba gi imaam ne ko yow yaa wax ne ka gee ko ëpp solo way yonent bi dafa wax ne hurmatul mumini akbaru indallahi min hurmatil ka'bati xormaay ku gëm yàlla rek mo ëpp fa yàlla xormaay ka gi simple julit bu gëm yàlla rek rawati na nak lo xam ci ko xamne lo xam ci ko xamne lo xam ci ko xamne waxal xalaatal looy looy wax ci moom kon aji na ba sonn aj yooyu yëpp ay ziyaar yonent bi mu ci biir moo tax dem na foofu lu ëpp yoon wi waaye aj yi lii la ndax booy seet téere man ngaa jàpp ne am na ñoo xam ne bu ñu la bàyyi ñaata aj la aj ngi ne la bàyyi nga wax ne yonent bi ataytuka tisaan summa ashran wa nii innani ataytuka haadi faqbalan laa tarabbasi ñëwal naa la juróom-ñeenti yoon ñëwal la yeneen fukki yoon ñëwal la yoon wii muy ñaar fukki ñaar yoon kon nag nangul ma suma yoon yi bul xaar dara nag nangul ma rek kon yoon yi ëpp na ëpp na yooni aj yi place boobu xam na ko boroom xam-xam yi fa daan nekk xam nañ ko rabita alamil islaami xam na ko maa ngi doon maa damaa faroon benn téere rek di ko jàng xaw ma sax ne téere bi luy wax ci bàyyi ma dem ba ci biir ma gis waa ji di wax ne saoudiye wax leen seen borom xam-xam yi bu fekkee xamuñ dara nañ noppi seen xam-xam leerut nañ noppi ndax ñi ngi weddi suufiyanke yi di wax te suufiyanke yi doy na leen seetal ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass zaimu tijaaniya bi garbi Ifriqiya mu ngi noonu suufiyanke la te mu ngi noonu seen mamlaka bi daf koo respecté woon mu nekk odwu ci rabita bi Faysal respecté ko respecté nañ ko ndax xam nañ mooy kan waaye duhun ne xam-xamam ku ne la koy jox Faysal xam na kuy bàyyi ndax ba mu bëggee nekk buur bàyyi la ñaan loo yàlla ñaanal ma yàlla ma nekk buur màkka bàyyi na ko yéen da ngeen di kontur tijaan yi te man tijaan laa mu nekk su ma yoon nekku ci loolu man buur laa bëgg rek ñaanal ma ko 60 la jox bàyyi ku tabee ngi noonu imaam mu ne dafay dugg nekk bàyyi tombeeg jim nga di génn bàyyi na ko déggal kii li muy wax mu ne ko lu mu mu ne ko def ni xaalis bi ma buur màkk jox naa ko jox genn ma ko ci ay ay action yooyu dana ma garantil dépasse bu ma fiy jógee danaa bàyyil sama njaboot gi xaalis ma am ne ah bàyyi loolu dafa mel ni xalaat bu rafet la de mu ne bàyyi na ko man waxuma loolu man li ma wax mooy lu ma am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko yàlla daf daan am ay million xëy du am dépasse ma ne xam nga Faysal xam na bàyyi lu tax bàyyi jox ko tariqa tijaan ku nekk li nga وقد سقاني فيصل الوزير كأس الشراب وهو بي مسرور لكنما الشيخ التجاني حضر معي وما أحب بسي درارا باي مونے ماغي توك فيصل بوبو صاح وزير نيكو غور مي مونے مومي جوخ اي كاس ماي نان mu melni baye daf ko yërëmoon ba bu ko egal ci lim nek mu ne way Cheikh Tidiane dafa tew ak man ne ma bu fi joxe mbot bu ko fi joxe du fi bu ko bu ko jox motax ku nek la nga mom rek la lay jox waye nak ku nek am nga ci baye dara ku nek rek am nga ci baye lo meuna a ku nek la jox شرطيان عثمان دفوي بايش يا موحنا فاض في ملك ومال فهو مروي كل ظام كم خديم سار مخدوما وشيخا سار عام كم نصارى أسلموا من فيض ذي القطب الإمام دينه دين قويم دائم دون انصرام من باي دفا ماي ماينا ماينا على الصح ما ام ني ماي نغور xam nga wàllu yu njëkk yi dañ doon ragal dajeeg buur yi lu tax ñoom dañ doon wax ne buñ dajeeg buur yi daf leen di iir yonent bi bàyyi nag daf doon dajeeg buur yi te waxtu nekk mu ngi gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la in shatta anni bil amini mazaaruhu fa mashhaduhu bil laysa bi fa ñuy ziyaare yonantu ñu ne Medina sori na ma léeg-léeg mën nañoo wax ne bàyyi sori na dina mu ne gis gi ma koy gis ma xol masta tàggali koog man lu tax nag am Suyuti nit ñëw na ci moom ne ko ta damaa bëgg nga dimbale ma ci buur bi dafa am problème mu ne ko problème yi may réglé ci gis yonantu bi moo gën a rëy sa problème bi te ragal naa gis buur yonantu bi iiruma waye xam nga kiy gis buur bi te fekk yaa ngi xemem ci buur bi bokkut ak ki nga xam ne dafay wax ne alayka salaatullahi wa salaamu salaatan biha tusqil muluku xadaaiqi maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne buur yi nañ ci roose sumay jardin yi mooy buur yi liggéeyal ko rek te buur yi dañ ko daan liggéeyal buur yi dañ ko daan liggéeyal ndax seen àddina googu moom jëlu ko ñaari misaal lay joxe benn bàyyi ko nettali bàyyi na te li jàngale xadis mu ne dafa aji saawut éviter leen reer ñuy waxtaan bàyyi waxtaan ba indi ci waxtaanam xadis yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax ne allahuma man wallaytahu amran min amri ummati fa shaqa alayhim allahuma shquq alayhi neew yàlla koo méngale dara ci sama mbiri xeet wii mu diisal ci seen kaw yàlla yàlla nga diisal ci kaw kooku bàyyi mu ne ñu dem ba suba mu ne ñu dem ba suba buur bi buur bi ooluwaat ko mu ñëw buur bi ne ko waaw ndax xadis jig nga ma nettali démb bu xadis ji la bàyyi na ko xadis ji wér la kay mu ngi ci sixaaxu sunnati buur bi ne ko njàq rek xadis jooju moom ma teree nelaw démb te boroom xam-xam am na ay xadis yu neex yoo xam ne mën na koo wax buur mu kontaan waaye dajeeg buur bu mel ni saawut di ko wax lu muy jàqee ba du nelaw guddi kooku xam nga ne addinaay buur bi du ne moo ko tax a jóg bàyyi ne waaye moom it loolu la gën a yaakaaral buur boobu xadis yonentu di ko jàqaloo ba nelawul guddi yéenay liggéey fay du baay bi ci ji Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla leen